ci mbirum troisième mandat bi nga xamantene ne ñu ko commencé di évoquer depuis le début nak ak yenn wax yi ñu amoon si biir parti APR ak ñenn ñi mënuñu ko jël au sérieux mais en l'espace de moins d'une semaine ñaari personnalité de haut rang ñoo wax jëmale ko si mbirum troisième mandat bi pourquoi de haut rang parce que quelqu'un qui est le directeur des structures du parti donc c'est l'appareil du parti moi euh, le ministre Mbengue qui ki le secrétaire général de la présidence Madame, le gouvernement le gestion de l'État, après Macky Sall suis le d'ailleurs euh, ancien premier ministre donc ñaari wax yu jëm si loolu bu mu mel ni dañoo bëgg a dellu bëgg indi jiixi jaaxa ci boppu sénégalais yi pour bëgg leen gëmloo na ne troisième mandat war na mun a am loolu dama jàpp na leen ne jot na ñu wax si jot na ñu artu si jot na ñu wax si suñu position bu leer mbirum troisième mandat bi nga xamante ne ne

parce que liggéey rek moo ko war dara waratu ko liggéeyal askan bu mu dig ay at siggil ay nitam parce que ku nekku ku choisir sa njiit bëgg sa njiit mu génn par la grande porte ak lu mu mënti def siggil ñu ko fal parce que am na ay sénégalais yu ko fal mu siggil leen fexe ba démocratie bi fu mu toll mu yóbbu ko fu sori C'est ba revendication population la population. si nous ne pas résultats mu indi sa résultats yu ans pour gagner par la grande porte même si vous erreurs ou des grave kenn si façon bi nous commencer. te loolu dañ ko bëgg leeral léegi ne du jàll dañ lañ koy wax les yeux dans les yeux du jàll réew mi kenn moomu réew mi kenn moomu ko war ngeen xalaat yéen senegale yi sacrifié wu pour ngeen falu ñaata sénégalais ñoo ñàkk seen bakkan ñaata sénégalais ñoo ñak seen bakkan ci affaireu mbirum démocratie rek ñaata sénégalais ñoo sacrifié pour ce pays là pour xeex pour ñu rombu yenn yi bañ fa demati donc waru len xalat un moment na da ngeen bëgg troisième candidature pour continuer de jouir des délices du pouvoir. Parce qu'en réalité, le pouvoir, c'est énormément de responsabilités. Mais la partie privilège, ngeen jox solo ba nga ni pour moi vous xalaat vous di pour pour les Sénégalais yi fi cinq années fi pendant 5 ans liggéey nañu ñàkk nañu sonn nañu pour Sénégalais yi vous avez mën nañ ñoo tàccu keneen continuer mais soo leen bëgg a ça veut dire que xoolatu leen les responsabilités responsabilités xoolatu leen la lourdeur de la charge mais li ngeen xool mooy les privilèges Les sénégalais yi nekkuñu ci ay privilèges ils ne sont pas privilégiés les sénégalais ne sont pas privilégiés tey soo gisee àll bi so gisee nit ñi jafé, jafé yi yokk courant bi charge gën wara ne Sénégalais yi nekkuñu ci jamm donc amul lenn luy wara. véritablement war leen pousser ngeen xalaat ne serait-ce une seule fois souiller la mémoire de tous ces Sénégalais qui se sont battus pour des questions de démocratie dans notre pays, pour que définitivement qu'on ferme une certaine page. Président Macky Sall Tay, nous nañ finalement que nous lu leen intéressé sommes ñoo parce que lu leen intéressé mooy que kan moo wax ne mandat trois kenn mënul def troisième mandat ñu dàq la lu leen intéressé mooy xool kan mooy tóob bi comme ni ñu koy waxee ay ay traître yu nekk biir APR ñu war a am ambition ñan la ñu war a doon ñu mën leen pourquoi bëggu leen nit ñi am am ambition parce que yéen da ngeen am ambition wu troisième mandat da ngeen am ambition wu troisième mandat moo tax bëggu leen kenn am ambition ci seen biir partie loolu moo dul moo dul jàll c'est-à-dire que mun ngeen gérer seen parti nu leen neexee mun ngeen dàq ku leen neex mais actuellement liggéeyu leen le président Don wax naan nañu fàtte mbirum mandat yi ñu liggéey yéen a nekk di xool kan mooy gàllankoor mbirum mandat yi ngeen jéem leen fa jóge jëlee loolu ngeen nekk di def actuellement donc jàpp nañ ne c'est dommage mais du jàll. C'est dommage pour vous, en premier chef. C'est dommage aussi pour le peuple sénégalais. Des combats en n'en plus finir que l'on répète à chaque fois. sommes nañ ne romb nañu yenn yi nous mës sommes ci di wax ay mbirum durée mandat ay mbirum nombre de mandat vous xool les discours du président Macky Sall beaucoup de na problèmes problème mandat et nombre de mandats combien de fois cette question a été évoquée dans ce pays combien de fois les gens se sont retrouvés pour pour définitivement tourner cette page Il y ne si yow président Macky Sall koy lañ une bonne fois pour tout yow sa bopp nga wax ko tey su ñu la gën a nga xamante ne ki à la tête de coordonner les actions gouvernementales qui n'est à la tête si parti bi yor structure yi su dee ñooñu wax moy yaa leen parce que ñooñu do leen dakk te wuñu wax motax je ne mets jamais l'accent sur les gens qui parlent je mets l'accent sur le véritable responsable et aujourd'hui le véritable responsable c'est le président Macky Sall tout kenen su leen waxoon noppi leen ñu noppi su leen wax su leen waxee wax leen ñu wax dafa wax wax leen moo tax ñu wax bu ñu wax leneen loolu nag lay wax une bonne fois pour tout su ma jàllee si président Macky bi nga xamante ne yàq na ko lu ñu naan yàq na ko yàq na ko nu mu ko yàqee mooy tey même su demoon ba renoncé dinañ xam ne ne bëggoon na ko grande porte bi dina jafe trop parce que même su bëggoon a renoncer nit ñi dinañ xa jàpp na ne bëggoon na ko peut-être dafa am fu mu lu tax mu renoncer parce que bëgg rombul ñi la jege taxaw waxal la soo demee nag ba tollu foofu da nga ko yàq da nga yàqal sa bopp ci lu bari mais su loolu rombee parce que loolu yépp cuisine interne la da si vous di si réfléchir wala di si am loo leen jéego yoo bëgg a si ngeen dellu si ginnaaw parce que duñ ko c'est manquer de respect aux populations c'est manquer de respect aux Sénégalais c'est manquer de respect à ce peuple c'est souiller la mémoire de tous ces Sénégalais qui se sont battus pour que la démocratie soit. fii mu c'est tromper le peuple c'est trahir le peuple sénégalais ngeen xamee ko noonu boole leen ko ci sen grille de réflexion su dee da ngeen di réfléchir ci lolu soo leen ko ci boolewul nak c'est à risque risques et péril mais si ñu leen tegee fële ñu wax peuple sénégalais jot nañu am fulla am fayda xam nga tay de plus en plus on a l'impression que amuñu sax identité